ma ne man eh, li nit ñi juum dama sëq ak Sonko concours Sonko ba sama bakkan ne nii sonkiste le sonkiste artiste comédien c'est moi ñoom mu neex leen mu naqari leen je suis Sonko totalement Sonko je le dis à haute et intelligible voix. ñoom ñëpp laa la wax. ku nekk Pastef rek wax naa la ko ku nekkul Pastef sympathisant comme membre man nekkuma membre nekkuma lu dul sympathisant tout court ma feebaroon moom mu set si ma li ma seq ak moom raw na dégg nga xamee rek yem fa il déplace yi il est venu à deux reprises chez benn bi dafa ñëw doon ma jaal si parce que sama doom bu jigéen moo gaañu mu ñëw fa doon waxtaan ak Djibril Gabi Guèye laa xam ni sax c'est c'était un homme politique parce que seen waxtaan wi dafa dem ba ñu dugg ci affaire politique te idées yi ma doon défendre ba léegi loolu laay gis ci moom mu neex ma lool Sonko boo ko bañee da nga ko dégluwul. d'accord boo gisee ñu éliminer ko si euh, ne dem présidentiel yoon du ma la bàyyi nga yeggali du yoon dañ ko bëgg a éliminer dong mais dama ni yi xel jamonoy gët ku sa deewin ñaaw rek. am na loo bàyyi ci biir àddina donc qu'on fii méfie de lépp luñ ko teg yàlla moo ñëw fekk ko ci lañ ko teg jox ko maqaama boo xam ne nii ça se toujours contre ñi ko teg xoolal 2011 ba léegi dama ni Sonko tey Sonko laa ëllëg i dans les instants Sonko laay doon ba faw mu am. ña président ou ñàkk ko yëpp laa boole yemale. d' ne nii lu mu nekk ci kaso bi ça vous a fait mal. pas. d' te gis nga ñi ko xam warul déranger kenn parce que moom ci boppam sax ba avocat yi demee di ko seeti da nga yóbbante bi Malick Ndiaye wax. léeg dafa ree gaañi ne leen nag yëf yaa ngi soog a door man ci misaal laa ko njëkki ba ñu koy wax may leen dafa nekk ci wicc wiccal wisagul bay taw dañ ko teylu rek bés bu wisee bay taw ci la xam kan mooy Sonko Sonko la moom bu may dox sax nañ ma wax Sonko leer na li ci des sama ngañ nekku ci